am ci luma ma bëgg dem par convenance personnelle ak ay ambition yu ñu am pour Sénégal muy ambition jam ak liggéey bima ma tamit ba war ka def ba desi ci sama gor gën mo daan sama lepp am na waxon ci sama papa ji sama sëriñ sama lepp mo gisul tamit mom mi la ñëk wo wax ko lima namm avant may def conférence de presse doomu aadama boo amul kilifa amoo dara. boobu boobu moom bu ma woon teg ko suuf sax duma ko waxaat. duma ko yëkkate dama koy teg suuf moom xam na lool duma fi ñëw nag kàddu ñaan rek moo fi tax a ñëwaat man xam naa ni mi ngi may ñaanal guddi bëccëg subaa ngoon mais dañuy ñëw di fàddalikuwaat rek. te aussi doomu aadama booy ànd ak ay nit ànd ak ay mbooloo dina baax nga ànd ak ñoom ci say kilifa ñi nga wóolu yaakaar leen ne leen ah nit ñi de damay ànd ak ñoom di liggéey ñu xam ni yow xam nañ nit ñi dëkk ñëpp a xamante bu fekkee teguwoo fu baax dinañ la woo fi la war a woo ni fi nga teguwut foofu nga xam ni ngay def hmm. li def nii tamit ñëw sëñ bi pour présenter waale la. mbolo mi may andal di liggéey si jigéen ñi di ci góor ñi ak jeunesse bi. parce que sëñ Moustapha Cissé mi ci Thierno lañ bokkoon àndi ne moom xam dëkk bi la ko xam sang wajur la tamit xam naa ni tamit ku xam kër gi la bu baax mom bi ñu décidé waxtaan bëgg am fu ñu jëm dafa jóg ànd seeg ñun. soxna ndey Fatou Faye moom tamit première adjointe adjointe au maire la ci maire Thiès Nord bi ñoo àndoon élection locale yi ci ci élection yooyu si la doonee conseiller ba doon adjointe au maire mi ngi noonu toog Ndeye Binta Gueye mële tamit depuis locale yi ñu ngi ànd ñoo àndoon tamit nekk si Thierno de même que Ndeye Fatou mi ñoom tamit bi ma génnee dañoo ànd pour ñun li ñuy taxawal ñu ànd taxawal ko ak kàddu yi daal sëñ bi. kàddu ñëw sàqu si ñaan la sàqu si ñaan ñëwaat feddaliwaat suñu kóolute di la dénkaat suñu bopp comme ni la ko suñu waajur bu góor bi waxe woon kon damaa ñëwaat feddali kuréel moo tax bu ñu jógee ma ni damay seeti kër kilifa diine yi dama ni kër maam El Hadj laay njëkke après sëñ bi ñaanal ñu jox ñu ndigal ñu doog a jóg continuer ginnaaw bi ñu sante yàlla bu baax julli si yonente bi di ñaanal eh, kilifa diine yi yàlla na leen yàlla may wér gën a dëgëral seen jëm bàyyi leen ba si kanam a kanam a kanam ak eh, suñu mbokku chrétien yi aussi ñu ngi leen di ñaanal bu bu baax eh, di ñaanal sénégal si at mu bees mi ñu jëm mu ñu am jàmm dëkk bi naat ak aussi ñaanal ñëpp daal ku si nekk rek loo bëgg yaa xam yàlla na ko borom defal ci jàmm ak salaam ak wér waaw loolu ñu ngi koy ñaanal dëkk bi ak nit ñi nekk ci dëkk bi tey aussi dama ànd ak nit ñi ma àndal dama décidé woon def tournée ci chefs religieux yi particulièrement ñu nekk dans la commune Thiès Nord xam naa ne bu ñu si paree aussi dinañ dem si yeneen communes yi aussi dinañ dugg si département bi aussi fépp fu ñu ko mën a def au tra à travers euh, au niveau national dinañ ko def comme ni ñu demee woon Touba. dañ demaat aussi si yenn yeneen kër yi Tiwaawan Kaolack fépp saafonteeg nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen ñun nu ñu gisee dëkk bi ak nuñ ko bëggee ak suñu suñu yéene si biir biir dëkk bi ki sant rek parce que ni ñi ngi si dëkk bi ñu ngi koy xool ñu ngi superviser le moment opportun pour ñu wax nuñ gisee dëkk bi incha allah bu jotee dinañ wax luñ ci war a wax plus que daan nañ ko def peut-être que am na média yu ko doon fekkee ñeneen duñ ko fekkee mais ñun mënuñu toog une année ou six mois te defuñu tournée ci ci chef religieux yi ñu dem te yéen ñi àndoon ak ñun gis ngeen ko xam ngeen ni ñun foofu këjuñu fa wala du tax événement wala situation mooy tax ñu fay ñëw dégg ngeen seeni kàddu dañ fay ñëw fréquemment nit ñi yëg ak li nit ñi yëgul te aussi xew-xew yi ñu am yëpp dañ ci dañ ciy participer nuñ ci nuñ ci nuñ ci nuñ ci war a participer euh, aussi tamit am na ci lu ma nekkoon génn ci c'est normal aussi kilifa diine yi nga dem waxtaan ak ñoom tàllal say loxo ñu ñaanal nga wax leen seen ambition ak say bëgg-bëgg ni nga gisee ni eh, moom nga war a doxale ak ni nga gisee dëkk bi yooyu yëpp lañ dem waxtaan ak ñoom saafonteeg ñoom et aussi on est très content on est tellement satisfait déglu nañ wax yi déglu nañ kàddu yi dégg nañ ñaan yi am na kàddu yoo xam sax jib na fa xaaruñu ko fa woon mais vraiment man ak ñi ma àndal ñëpp eh, ñi ñi ngi kontaan ci kàddu yooyu ak ñaax ak conseils yi ñu jox aussi. waa am na lu ma leen waxoon ma ne leen ci li ma nekkoon convenance personnelle ak ay ambition politique moo moo fa jëlee waaye tamit li may teg wan leen jox naa leen ab ci fan yi ñu jëm bis bu ñu ci tollee di ngeen xam lan laay def ak lan laay teg incha allah. non les femmes sont toujours avec moi ku ma xam xam ni jigéen ñi sont avec moi elles sont fidèles. ñu dëggu lañ buñ jàppee duñu bàyyi ñi may ànd ñi ñëpp depuis avant élection locale yële sa fait yàgg na ñi biir parti v ñi si nekkoon am na ñoo xam ni bokkuñu woon RV mais Massamba Diop moo leen moo leen intéressé woon et je toujours avec elle lay wan ni ñoom dañoo fidèle dañu jàpp fu may dem depuis kii gis nga tey situation yi fête bi suba la mais yéen ñi ànd topp ñu boobu ba léegi yéen a ngi gis xaddi dawuñu vraiment ils sont braves et que ni ensemble on va réussir notre projet bi ñu bëgg a bëgg a teg pour le Sénégal. <laughs> waaw je pense que ni loolu yéen a ngi fi presse bi yéen a ngi fi on va suivre l' actualité ensemble bu amee lu ci war a am rek di ngeen ko yëg di ngeen ko xam je pense que ni ñun daal li ñuy war a def ñu ngi koy def nit ñu tamit bu ñu dawee ñëw si ñun jàpp ni ñun la ñu war a ànd dañ leen di accueillir et aussi ànd ak ñoom liggéey ko no je pense que nii wax naa leen ko waxaat ko actuellement tolluma di wax ci actualité politique daa am ci liggéey bu ma ne. damay liggéey ba pare mhm. doo ko mën a taxaw génn wax